citoyen. UCAB FM, nous sommes ici xibaar yi fii si UCAB FM Pape Serra Mbaye. mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulahi dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi fii ci ndaam Daaru Alimul Xabiir xibaaru digg bëccëg bi. la gën a fees ci xibaar yi Amérique la ñu bawoon ñëw xijaar ci xalif général di murid a biir jotaay xibaar yi naka noonu ca Njaareem wala bokk fi xam ne kon moom ñoo di union des associations des paysans de la région ñoom na ko ñoo ko fa doon amal danañ ko gën a yaatal ci biir jotaay xibaar yi askan wa nekk ca ndokk ak la nga xam ne ko moom ma di jafe-jafe la xam ko moom lañu fay dund lu jot ko caa fésal Moustapha Ndiaye danoonu ci indil ay leeral ci biir jotaay ak xibaar yi bokke nanu ko baaxoo àllarba bu jot ko docteur Guèye li gën a fës ci yéen kaay na ma këmal jotaay bi nees tuuti ñu di kay ci forom fàcce gi ndeem soob ma sunu bopp yi fii ci UCAB FM Pape Pape Sayar Mbaye ci àddukaay gi machine bi Cheikh bi yéen askanu ci déglu bi rajo UCAB 103.5 di téeméer ak ñett yu tombal juróom ngeen ñu déglu ci bande FM bi internet bi ñetti w point sunfm point com wala ñetti w point a2 itv point net tey ji la àllarba ñaar fukk ak benn fan ci weeru tubaab di décembre atum 2022 ñaar fukk ak juróom benn fan ci weeru wolof di rakkaat yi gàmmu ci atum ci nañ ñeenti téeméer rek ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi waxtu yi ñu ngi ci 14 heures 33 ñaari waxtu ci bëccëg mbokk yi fanweer ak ñetti simili moo boot ci kawam xibaaru digg bëccëg bi Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndaam daaru alimul xabiir xibaaru digg ba ci ni leen ko waxe woon doonu koy dore ak kuréel gi nag ña nga fekk baax ca réewum Amérique ñoom nag dikkoon si siyaar si xaalifa général des mourides national muslim business council bu USA noonu lañ tuddee seen bopp mu doon kuréel gi nga xam ne nag ñoom danoo dikkoon ngir amal ci seen ziar ci kanamu xaalifa général des mourides Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou ca jotaay ba nag fesal nañ fa mbooloom ak tolluwaay ba maanaam présenté nañu ko xalif yi ngir ñu mu xam ñan ñoo ñëwoon siyaar si ko waaye tam kàddu yi nga xam ne kon jot nañu ko ca fesal seen ay kàddu ci kanamu Serigne Mountakha mu Serigne Bassirou lañ ca jukki ñu teewlu ko. Mbacké ñu ngi lay ziar bu wér ñaan yàlla mu yàgg taxawaay bi guddoon fan bi te wéral cër tëggaat leen ba ñu yees ñu nag ñu ngi tudd Bassirou Seck di liggéey ak américain yi nga xam ni ay jullit lañu muy kuréel bu am solo bu nekk Amérique maanaam ñi nga xam ne ñoo fa am ay entreprise te am fa njëriñ ñoo boole seen bopp ci benn kuréel bu tudd NMBC muy National Muslim Business Council di toll si ñetti junni daanaka ëpp na ko ci ay nit yoo xam ñoo ko bokk ànd ak seen kilifa nag daal ne dañoo bëgg a jël diine ji def ko muy leen jokkale ak waa Sénégal ci wàllu tourisme ñëw xam si seen diine ndax ñu si bëri ajuri lañu uhuh. waaye daanaka diine ji ñoom dañu fay dund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 teranga yi réy na lool réy na lool moom nag nee na sax da koy yéex a yëg ma ne kon de xam naa boo ko euh, teeloon yëg kon moom daal sant bu baax a baax a baax a baax di représenter bi ki mooy David Keh Hassan moom mooy seen kilifa kii mooy Moussa Dan Fodio kii mooy imam ratib ba nekkoon Atlanta Masjid am na imaamu Texas Abdou Karim am na ki ñu àndal nag ambassadeur ak envoyé spécial bi nga xam ni président bu Sierra Leone moo ko jukki seen biir ngir dooleel leen nommé ko ambassadeur muy Waly Chamsidine ànd ak nag ki nga xam ni moom Waly Chamsidine ah, ñu ni Waly Chamsidine moom ambassadeur bi ah, par bu Sierra Leone mm-hmm. ngir dooleel leen mm-hmm. ngir seen kàddu mën a jëpp ca kaw mm-hmm. ngir ñu mën a sawar ci ñibbisi mu may ko doole def ko ambassadeur dénk ko wàllu trade ak investment maanaam muy commerce ak investissement moom nag daanaka moo leen dajale ñun ñoom ñëpp waaye nag nee na Sénégal moom ku bëgg sumb dara mu sotti fi nga koy njëkkee naam sera la woon lañ ko waaye moom fii la koy sumbee mu ànd nag ay jigéen ñu am solo mu ci gën a ràññu ki nga xam ni seen journal bi gën a mag muy Muslim Journal bi nga xam ni mal X moo ko defoon boobu ak am na juróom benn fukki mm. moom moo ko jiite muy sista Aïcha Moustapha moom mooy journal bi moom moom moo njëkk a tiitre jumaay Touba def ko à la te boobu ñëwagul fii mu ne woon nag lu mu xat xat xat même bu délégation bi ñëwul moom dana yollee ko ñëw bëggoon nag nga ñaane ko baax a baax ndax moom moo mën a fësal liggéey Sëñ Tuubaa foofu ndax journal bi moom dana génn si juróom fukki état yi ak yëpp ay bés bu nekk mu bëggoon nag bu fi jógee lii fi ne ci liggéey bi ndax liggéey ba kat daayira baax na waaye ñoom ñooy liggéey bi baax na de waaye liggéey bi si ñoom ñii la ndax dañoo bëgg a ñibbisi bëggoon daal nga ñaanal leen loolu gën a dal ba at mu jot ñu fi ñëw benn ñaar ñett ndax ay junni junni ñi ngi toog kon Mbacke foofu rek laay yamale kàddu yi di la sant bu baax di la gërëm di ko tëjee nag baytu maam Cheikh Samba Diarra ndax dañu bu sëg sëgee ñu wéral li tax ma jóg di ko biral yooyu yore seen jàllale kanam kon ay jàllale sëñ Touba moom la ñuy fu mu nekk jërëjëf. For the brothers they see their identical friends and people they grew I look at you I see my father. So we know we are one people. And this is just an opportunity by Allah's hand that we come together today. To share the blessings of Sarin Tuba and the blessings of being Muslim. There's only one word that matters, and that is La ilaha illallah. And that's what unites us. Khalifa, we are honored to be with you. We pray that Allah gives you long life. We would never know that you are of your age the way you smile always. Alhamdulillah. loolu doon kàddu yi nga xam ne kon kuréel googale di National Muslim Business Council ñoom nag doon nañu ko fésal ci ziar bu doon nañu ko amal ci kanamu Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou moom Serigne bi nag eh, am na ci lool mbégte ci eh, taxawaay bi def nañu ko ci jotaay ba kàddu yi nga xam ne ko yëkkati na ko ci ñu àndoo teewlu ko. daal lislaam rek lañ taxaju ak Serigne Touba. Hmm. li ñu def dañ ko rëcc mukk. incha allah daañu ko si ñeneen. incha allah you will see the ci dundu tey gii bu dul àllaxira it daañu gis njëriñ ci dundu tey gii. Hmm. gëm nañ ni xam ne ñoom li ñu wax dañu war a dëgg la ci ñoom. we can feel and know that you are definitely you mean what you say. kon dafay daal di mel ne ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi nañu ñëpp. just like we are from the same parents. ba tax na gis gi nu ñu gis mbégte mu rëy la ci noonu. gën gën dana gën dana gën dal ci temps bi ñu toll. incha allah ñu toll lëj na lool. it's a time of crisis. hardships and uh, uncertainty. te l'islam rek moo ko mën a sauver. only Islam can save save this world. that's right. Baba. ci nag Serigne Touba. especially when moom moo jëf loo xam ne eh, na borom xam-xam yëpp. jamonoom. in his times. borom xam yi ñu bari lañ ko Mauritanie. most of the learned people Mauritania, the northern part of Senegal. borom ba foofu lañ ko mujjee yóbbu. and by the Allah he was sent exile to Mauritania so that he can go. and cover himself and beat those lone people in Mauritania. Romango yu bare bari ñoo ko wër foofu. There were a lot of lone people and academia in those days in Mauritania. di seet mbiram bu baax a baax a baax. so they just you know just were doing his background testing him see if he's real. ñoom ñëpp ñu maase nangu ko. and they all finally accepted that he is a man. xam ne kii nitu yàlla la. that this is a man of God. xam na ni kilifa bu mag la ci nit yàlla yi. this is one of the most outstanding leaders in the man of God. Eh, loolu fa tabarakallah kon eh, monde bi yëpp la fi la fi ñëwoon. so so he is for the whole world, he is for humanity, it's a legacy for all mankind. xëy na xamuñu nañ ko war a xamee waaye monde bi yëpp dana ko xam. maybe you don't know yet but a day will come everyone will know that he is for all mankind. nii ñu def moom tegtal la ci. so what we've done is just a sign that definitely he is what is universal. moo tax ñoo leen di bëggee bu baax a baax di sant yàlla ci ñëw di ñëw. ñu ngi ñu ngi leen di sant yàlla ñoom bu baax a baax. and then we we thank God for you coming. leen sant ñoom seen bopp. also we like to thank you too. mais nan la ñu xam ne maa ngi leen di wax ne jërëjëf. no that we like to thank you deeply thank you thank you. thank you. kon ñu xam ne sama xol sedd na bu baax. ñu ngi ñaan bu baax a baax a baax. and then we are praying praying deeply Allah very strongly. yàlla sàmm leen. so that Allah will protect you. te musal leen ci bépp safaan. protect you from all kind of evil. gën leen a ubbil chance bu rëy nag. seen diggante ak yàlla ak seen diggante ak Tuubaa. more doors you between you Allah and success in this. ngeen ngeen gën a sóobu so that you can be more committed and engaged for Islam. na mu gën a sell. in a very pure way. bu amee. so if dañ ko yëg seen dundu adduna gi tey. then you will feel it in, your life on earth. Mm-hmm. rawatina ci dundu àllaxira bi. not to say not in the afterlife. jërë ngeen jëf. thank you loolu doon kàddu yi Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou ci ziar bu kon na ñooñee doon ay ndaw yu bawoo foofee kon ci réewum Amérique doon nañu ko ko ziar yi mu doon kàddu yi nag ñu ngi ko taataane ci sunu ay naataango yu Minan Academy mbokk yi ngeen ñu topp ci xibaaru digg ba ci 14 heures ñaari waxtu ñeent fukk ak ñetti simili moo boot ci koom ca ndokk ak la ko wër. ndokk la ñuy dem foofee nag euh, daanaka ab diir ngi ni bañ doon jànkuwante ay jafe-jafe rawatina ci nawet beek ndox mi nga xam ne kon moo doon génn ci bassin ba nekk foofee ca euh, Daaru Rahman doon yàq ca lu bëree bëri booba nag nee nañ diggee bu ne yi dig nañ leen ko boobaak léegi nag lañ leen gëj a gis gisatuñ ca dara ña ngay soññewaat nag ki nga xam kon moom moo di Modou ñan moo doon wax ci turu ñenn ci askan wa la nga xam ne kon seq na kook Moustapha Ndiaye ci ay leer ñu lu ko. ndokk kaleer bi ndox mi ak léegi ñi fi ñëwoon doon saytu dellusiwaat nañ fi wala ñoom ñëwaat nañ seet suñu wala ñoo ñu daal dara defaluñu ko fi nii keroog bañ fi jógee ñëw fi ak seeni wax ak léegi nii ñoom ñëwaatuñ fii nii gisuñu leen dégguñu leen léegi nag li ñu bëgg a xam ñun maanaam ñoom yàq gi ñu yàqoon suñ sardin yi ba pare depuis boobu ba léegi nii ñu ñëw wax ñu lañ doon wax gisuñu leen dégguñu leen ñoom ci ñu nekk ñoom nañ wax ci ñu nekk waaw dañu dimbale ngir yàlla ak yónente bi yàqal nit ki kay wax dëgg yàlla boo ko defee ñëw xool xam ne yàq nga ba senegal ak àdduna bépp xam ne yàq nañ ah dikkaatuñ fi waxuñ ñu lijjantiwuñ ñu lu dul toog rek jàpp seen mor sa ñàmbur pourquoi loolu moom mooy lan moom waaw mooy lan nañ ñëw ñu saytuwaat xool fi mu toll nii nii nii rek la woon ñëwaat bi sax nag bu ñëwaatoon ba xool gis liggéey bi ni mu demee buñ xam danañ xam ne ñoom lañ yàqu lañ lañ yàqoon maanaam jéggi na dayoo waaw bu ñëwaatoon fi mu doon nii rek ba gis ni ñu commencé waatee liggéey rek ñu xam ne ñoom lañ yàqoon dayoo bi jéggi gi ëpp na te yàq gi dafa am lu mu nuru parce que premier keroog bi fi ministre de l'intérieur bi ñëwee na na danañ régler seli solution ci ngoon nga te suba teel huit heures déglu RFM ñu naan bassin ba toj na ak bassin ba tojut matul dix minutes ndox mi ñëw dugg ci suñu sàrree bi mais léegi loolu lu moom yàq fi ay milliards na fi yàq ay milliards ay maanaam mën naa waxal na la presque cent personnes yoo xam ne ñu ngi doon liggéey ci loo xam ne nii toog nañ fii nii quatre mois ba cinq mois yoo xam ne nii liggéeyuñ dara ah, dund variant rek lañ doon dund léegi nag ñoom nañ nañ nañ gestu askan wi wax dëgg yàlla fii ay liggéey a fi am ñi moom ku leen dimbaliwutit boo leen yàqee war leen a xool moom waaw ku leen dimbaliwut boo leen yàqalee war a xam li nga leen yàqal lu mu doon nga ñëw saytu leen xool leen nemmeeku leen waaw waaye mbir mi ki maane na lool ki maane na lool seen defaaka bii daal wax dëgg yàlla ki maane na parce que wàcc ab toj ab bassin mu ñëw yàq ab tool ñu defaat mu yàqaat ñu defaat mu yàqaat ba muy ñeenti yoon ba muy ñeenti yoon yoo xam ne heure boo defaree mu yàq heure boo defaree rek ndox mi ñëw na yàq yàq yàq affaire waaw ba léegi nii gis déggoo leen gisoo leen xamoo ci lu ñu nekk ah. yàlla rafet rafetul de dafa tudd ci ñoo xam ne nii mosuñoo toog ci kenn mos a dégg lu ndokk ka leer ak fenn fenn moom ci ay rajo ñuy toog di ñaxtoo ko ak a wax moom mais lii dafa metti dafa ëpp dafa ëpp waaw kenn mosu leen dégg fenn liggéey rek lañu leen xamee woon liggéey kese mais maman bi ñu nekk nii yàqal nañ leen seenab yàqal wacce leen ñu ngi nekkaat fi mu doon nii am na ci ñoo xam ne nii sax ba fii may wax ak yow nii walaay la xas im nekku nekku dañ fee jaare ñoom naa ngi waaw kenn gisatu leen kenn déggatu leen ndax dem nañ mënatuñ fay liggéey loolu rafetut ba léegi nii kenn gisu leen kenn déggu leen du Mbacke Ndaw moo fi taxaw Assemblée national wax ko fa waaw keneen déggatuma ko fi mu wax ko fi keneen it du lijjantiwaatul nañ ñu dimbale ngir yàlla yonent bi gestu waa dëkk bii nii nañu ñu dimbale ñu gestu waa dëkk bi mbir mu metti na trop loolu doon kàddu yu Modou Niang ci turu askan wa yeewoo ca ndokk ak la nga xam ne kon moom nañ dund ci ay jafe-jafe ne ba ñu yàqaleeg léegi nag daanaka eh, gisatuñ ci kenn rawatina nag digg yi nga xam ne ko diggoon nañ leen ko mu ci doon eh, yëgluwaat ba tey ci leneen lu ñuy wax mooy baykat yeek jafe yi ñu ngi koy dund lu jëm ci wàllu gerte geeg jiw bi ak taxaw gu leen koo taxaw nag taxaw seetlu gi nga xam ne eh, ki jitee kuréel ga leen lëkkale jot na ko caa taxaw seetlu ci njaareem lu jëm ci wàllu way taxaw bi nga xam ne kon amal nanu ko ca moom Pape Diouf mi jiite li nga xam ne kon moom moo di irab de doon rek union des associations des paysans de la région de Diourbel lu jëm ci wàllu woowu li jëm ci jiw week gerte geek lépp lu jëm ci wàllu taxawaay boobu la nga xam ne kon jot na ko caa leeral ñu àndoo ko ba tey ci usines yi lu tax instant yi da faral di am ay ger gerte bu bëri mais bi ba euh, ren campagne bi daal amul waaw loolu mën nañ ci indi suñu xalaat rek mooy gerte moom euh, demewul li mu war a demee euh, production bi Euh, doxul ni mu war a doxe loolu benn la ci ñaareel bi mooy euh, prix bi nga xamante ne moom la ñu taxawal mu baax na deux cent soixante baax na mais jamono bi léegi comme marché noir bi des fois dañuy jaay ay trois cent cinquante quatre cent comme sa gerte bëriwul nga dem fi prix bi gën a yokkoo nga jaay ko fa nga sa gerte mën a yokku loolu la ñenn ñi di taamu loolu moom mbokk na ci li nga xamante ne moo tax tey ñoom ñu dem jaay woon ci usine bi lu am solo la woon parce que daf leen waroon permettre ñoom usine bi defar ko ñu am ci diw am ci rakkal am ci lépp mais ñeneen ñi aussi euh, suñ ko jëndee mooy Euh, dinaa ñëw sax ci suuf ci bi ñuy wax ci affaire chinois yi loolu dinaa ci ñëw mais ñooñu suñ ko jëndee euh, day xaw a euh, doy waar parce que ñoom dañ ko yóbbu deuxième question bi moom mooy wax ci affaire jiwu bi waaw ñàkk gerte bi am ni nawet bi am na ci solo mais jiwu bi aussi am na ci solo jiwu jiwu bi ñuy joxe loolu presque du jiwu parce que doyul nekkul qualité doyul parce que da dem ci benn village ñu jox leen ñu nekk euh, soixante huit ménages par exemple wala cent ménages ñu jox leen ay euh, trente sacs wala vingt sacs xam nga loolu taxul ñu wax semence te semence boobu du am qualité des fois dañ koy ségal loolu dañuy wax ne euh, joxe nañ semence mais en réalité quantité bi ñu wax ak valeur bi ñu wax du dem carrément ci affaire semence. loolu euh, moom moo waral loolu xam nga day dugaat rek ci question bale euh, question bi mooy vraiment euh, semence moom niñ ko joxee doy na waar loolu beneen problème la su ma doon digal nag état bi ci côté boobu li may wax rek mooy ñu fexe seet mode bi ñu joxe semence wax nañ ko waxaat ko mais defuñu ko parce que semence soo waxee nit ne demal jënd rek gerte yóbbul dëkk sangam mu dem jën mën naa jëm variété boo xamante ne ni sax du méngoo ak dëkk boobu li ñuy béy loolu yëpp da cee am mais su fekkoon ne dañu dañu demoon ci organisation paysanne yi ñu def expression de besoin ñu soxla semence parce que nekkul nekk ñëpp nag ñoo soxla semence am na ñu soxla semence am na ñu soxlawul semence ñu def identité euh, de euh, identification des besoins recensement des besoins ñu recenser besoins population yi ci en matière de semence ñu def semence mais nag ñu fexe dem indi ji semence de qualité suñ jiyee day am njarital ci nawet bi loolu daal lay digal nawet bi euh, kii bi euh, lay digal comme euh, le gouvernement pour moom mu xoolaat mode bi mu joxe affaire semence ak engrais yëpp li jëm ci affaire u jaay chinois loolu moom man dama ko mos a bañ parce que chinois su ko jëndee da koy yóbbu su ko yóbboo def koy defaraat ba pare ñëw jaayaat ñu ko lu ëpp li nga xam te moom lañ ko jaay woon loolu benn la mais aussi day tax aussi jiw bi du doy parce que sa euh, état bi même su bëggoon jënd jiw pour joxe ko su gisul jiw bu mu jënd du ko mën a jënd. su ma doon digal producteurs yi dañuy bay ne dañuy jaay ci vraiment ci si si si si waaw xëy na nag. même mënuma mënoo tere nag euh, producteur mu jaay prix bu neex mais comme am na ñeneen ñu fiy jënd prix yoo xamante ne nii même su tollul prix chinois yi aussi mu xaw leen a jege loolu mën nañoo dem sax jaay ko foofu parce que même soo ko jaayul Sonacos jaay ko ci euh, euh, huileries yeneen yi wala ci si par exemple ay marché noir bi soo soxlaa soo demee nga gis ko mais lii dañ koy jënd yóbbu ko loo gisul koy dootoo ko jënd loolu doon euh, kàddu yi doon na ko ci yëkkati jëm rek ci li nga xam ne kon moo aju ci euh, wàllug gerte geek jiw yi di fàttali rek ne jamono ji foofee nga xam ne kon moom moo di ci xoojil nga xam ne kon réew moom lañu jagleel tout temps ki di semaine nationale de la petite enfance incha allah rabi danañu ci euh, dellusiwaat ni nu ko baaxoo mbokk yi àllarba bu jot kër docteur Gaye tey docteur Serigne Mor Gaye bu clinique Maguette Mag nekk ca Ndiobène ca Mbacke moom nag tey mi ngi del si ci tension hypertension doon tension bu yéeg ni mi daloo doomu aadama bi taxawaay ba kër docteur Gaye ñu ànd ci ak moom. bu jot fii ci UCAB FM. jërë ngeen jëf amaan mbégte ak kontaan di ñëw seen rubrique santé ci rajo UCAB FM ngeen ànd si ak docteur Gaye clinique Maggi Mag. bi nekk Mbàkke Njuubeen mm, si tëli Sanciya te nag ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy tension hypertension artérielle mu nekk feebar boo xam ne liñ koy waxtaanee bari na waaye euh, saa su nekk duñ si jug di ko waxtaanee ndax dafa nekk feebar boo xam dañoo gis ne jamono ji bokk na ci feebar yi ëpp euh, li muy lor si doomu aadama yi bokk na ci feebar yi nga xam ne moo ëpp li muy laagaloo si doomu aadama yi euh, ndax environnement bi ñu dund léegi mucc si yóbbul trop Euh, moo tax à chaque fois ñuy ñëw di ko di ko di ko waxtaanee euh, mu mel ne feebar boo xam ne comme niñ koy faral di waxee lan mooy hypertension artérielle jamono ji nga xam ne OMS muy euh, kuréel gi nga xam ne moo moo tënk ñëpp ñoo xam ne ñoo wàllu woon wàcc faj nee nañ bu fekkee ne dem nga ci pajkat mu jël sa tension mu supérieur à cent trente cinq wala quatre vingt cinq diastole maanaam xol bi bi muy liggéey mu supérieur à cent trente cinq wala xol bi bi muy bi muy noppalu mu inférieur mu supérieur à quatre vingt cinq muy euh, tension systolique ak diastole bu boobaa nit ki dañ koy considérer comme ku amee tension ci ginnaaw ñaari consultation yu tegaloo yoo xam ne dem nga ko ci ci kii bi euh, tension nag comme ni koy faral di waxee nit ki nan la koy faral di euh, ràññale maanaam nan lay njortoo am na tension nga xam ne di demagut si kenn su fekkee ne gis nga ne bopp bi dafay dafay metti lu bari tëw sedd bu boobaa nit ki war naa toog ne ah man sama tension bi peut-être naa dem seetlu ko wala nopp yi di wiir nga ne euh, naa dem si ORL mu xool sama nopp yi genre wala kii euh, boobu tamit war ngaa jot bala ngay dem si ORL wala spécialité benn boo xam day faj wàllum nga dem ñu xool sa tension ba xam amul jafe-jafe wala bët yu lëndëm euh, nga jékki-jékki bët yi mel ne ay saxaar yooyu kooku tamit bala ngay def si ophtalmo da nga war a dem ñu xoolal la sa tension. ba xam dafay yéeg wala dafay dafa dafa dafay wàcc wala tamit ngay miir foo toll bala ngay dem di naani feer wala naan damay jël garab sàngam da ngaa war a dem ñu jël sa tension kon ñeent yooyu moom dafa nekk nit ki fu ko amee rek war naa dem xooli tension waaye ginnaaw yooyu nag am na yeneen signes yoo xam ne nit ki bu koy amee tamit war naa dem jot ne am na tension mooy koo xam ne fu mu toll day gaaw a sonn est bu yéegoon aller retour rek da gis ne dafay commencer à wala bu doxee benn distance wala liggéey lu mu ndaw ndaw bu ko defee rek da gis ne kii day commencé am jafe-jafe boobu kooku tamit war naa mën a xool tension wala ñi nga xam ne tamit ñaar ya dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy seen tànk day nagam fuñ tong mel ne ay sànq lañ da dox ñooñu tamit war nañoo xool euh, seeni tension kon daal loolu ay màndarga yoo xam ne am na yeneen nag màndarga waaye du question ne tamit mandarga yi boo si gis rek boo si tamit euh, sa tension li am na ñoo xam ne duñu am benn mandarga si yi ñu wax ni fekk ne seen tension dafay yéeg te ñooñu sax jàpp naa ne moo gën a yées euh, benn baaxu ci nag waaye ak lu mu ci mën a am rek il faut que ñuy am habitude di dem di xorlu suñuy yaram rawatina suñu tension artérielle kon loolu lañ leen andiloon ci premier épisode bi nga xam ne moom lañ jagle tension di leen gërëm di leen sant ba beneen kër docteur gay àllarba bu jot fii ci UCAB FM. ngay sant di ko gërëm incha allah rabi di ko joxaat daje beneen àllarba ci beneen ko ponk bi incha allah rabi ci kàttanu borom bi sunu xibaaru guddi gi danañ leen ko tollantuwaatal mbokk yi egg ak yéen ci ponk bi këmmal jotaay bi li gën a fees ci yéene kaay ñu leen koy nafaral. UCAB mbokk yi kon mel ne eh, jafe-jafe tuuti ci loolu nga xam ne kon moo di yéene kaay yi kon bu fekkent si jàpp ngeen rek li gën a fës ci yéene kaay yi gën kon eh, ñu fas yéene ci ànd ak yéen eh, ci li nga xam ne kon moo gën a fës ci yéene kaay yi ñu leen koy nafaral. Biz simil Serigne Bassirou Gueye mi ñu jox mu jiite OFNAC yénn kaay bari ñoo xëy di ñu nettali ne jox nañu ko di ko jox yénn kaay bi di Le Quotidien moo xëy diñu ko ñu koy tënk ci OFNAC juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay dossiers doon na ko ci kuréel gi nga xam kon moom la jiite moom ki fi nekkoon procureur de la république yénn kaay teg ca toogo ba jox nañu ko lenge ya ngir rek mu war doxal li nga xam ne kon moom moo di liggéeyu OFNAC sunu naataango yi xëy di fàttali ne ma nga fa wuutu nag ki nga xam ne kon moom moo di Seynabou Ndiaye Diakhaté juróom benn at yoo xam ne kon ma nga woon ca bopp kuréel googulee ginnaaw bu mu delsee ci mbirum OFNAC nag Serigne Bassirou Gueye moom nag ma nga cee xam le ne li nga xam ne kon moom ko gàll ci aw loosam mu liggéey xam na ko bu baax te nag ma lanu ko gàll ci aw loosam moom nag ma nga cay bàyyi xel sunu naataango yi ba tey di nettali kàddu Serigne Bassirou Gueye di xam le ne xeex ak guerre moom doonul mbir moo xam ne kon mu yombal ci biim réewum senegal waaye nag lu ci man di xool am na sa nag ñenn ci ay doomu aadama yoo xam ne kon nekkoon nañu fa ci bopp kuréel googule mu fas yéeneen fa wuul seenu liggéey la nga xam ne kon na ko fa def dana ko doxal ci ni nga xam ne kon noonu ko doon defee wala sax mu def lu leen raw nga xam ne kon moo koy xaar ci liggéey bi xam na ko te dana ca bàyyi xel Vox Populi yéene kaay ba tey ma nga ca mbirum Serigne Bassirou Gueye mi fi nekkoon procureur de la République Bassirou Gueye bi mu nekkee procureur dossier yi nga xam ne kon jotoon nañ ko caa jox la ca war lépp càmbar na ko ca ba tey luñ ci mën di xam kon ko ca ba jox ko lenge moom kii jiite jamono li nga xam ne kon moom la bëgg rek mooy kuréel gi di OFNAC moom lu mu ca man ba gën koo jëmale kaw danu ko def le solo yéenekaay ñu koy nettali yéenekaay bi di critique moom ba tey maa nga ca mbirum Cour des comptes ak li nga xam ne kon mooy coow li nga xam ne kon moo ja aju ak yi nga xam ne kon moom lañ dugal ci mbas yi door Covid 19 yéenekaay bi di xam la rek ne fi mu toll nii bu ñu koy xool nguuru Sénégal kay li nga xam ne kon moom la ñu bëri askan wi di sàkku ci ñoom mooy mbirum koppar yi moom nanu ko leeral ndax nag nag coow li bëri na ca lool koppar yi nga xam ne kon moom lan dugal ci mbas mi ak naka cour des comptes la nga xam ne kon jot na ko caa génne luubal yi nga a def ci atum 2024 yénn bi moo xëy di xamal rek ne jamono ji daal luñ ci di xool lu jëm ci wàllu ko jongante la moom lu jara di xam le na kay nguur na nu bëgg moom ngi rek lu lu jëm ci wàllu information judiciaire boo xam ne kon dañoo bëgg rek ngir ñu mën koo leer ci lu jëm ci wàllu nga xam ne kon samba boy lañ leen di tuddee eh, ci wàllum koom mu doon ay délinquant financier yoo xam ne kon dañoo ñaaw njort nag ne nga xam ne kon waa cour des comptes gis nañ ko ci ay luubal ñooñu nag dañoo war a moon xool seen ay mbir ngir mën koo lijjanti ba ñu xam dëgg-dëgg lan moo ca xew bés bi ba tey ma nga ca mbirum bi nga xam ne kon moom la ñu yore kopparum réew mi waaye tam lu jëm ci wàllu ka seetu gi ak taxawaay bi nga xam ne kon cour des comptes yi ñu ngi ko cee def yénn kaay bi xëy di xamal rek mais jamono ji koy boo koy xool rapport yi moom lu jara mën a xoolaat la dëggantaan li ko dale ci njiitu réew mi ba ci ministre yi jaar ci directeur généraux yi rapport corps de contrôle yi nga xam ne kon ñoom la ñu dénk ngir rek ñuy saytu ko xool ñoom nag luñ ci mën di nemmeeku li nga xam ne kon gis nañu ko ca mooy fi mu toll ni koy luubali moom bëri na lool waaye nag bëri na ci ñenn ñoo xam ne kon fi mu toll ni ñu ngi lañ joxoñ baaramu tuuma yéenekaay bi xëy di ko nettali ba tey sunu naataango xëy di xamal ne kay fekkente ni si rapport yooyu moom doonu loo xam ne kon lu baax la ba tey lu ci mën di ko lu jëm ci yoreen wi itam war nañ a xoolaat bu baax a baax yéen kaay bi xëy di xamal ne rapport baaxul wala yoreen waa baaxul askan wi seen ay koppar bëgg nañoo xam dëgg-dëgg loo xam ne kon koy def ci na ko ñu koy jox nguur gi loole ba tey lii di UGE doon inspection générale li nga xam ne kon moom la ñu génn ci ay mbóot ñu di ko leeral ndax nag bëri na ci ay rapport yoo xam ne kon dañuy génn askan wi ca coow waaye nag daanaka nu mujj fenn li nga xam ne kon ñoo def fa njombe luubal yooyu le ñoom nag saa su dana ko danay am ay bunt yoo xam ne ko danañ fexe ba génn ca ba naka mbir ma du mujj fenn yéenekaay bi xëy di xamal nag ne loolee daanaka faral di gàntal waaye da woon di naxasaalal li nga xam ne kon moom moo di liggéeyu enquête kat yi nga xam ne kon ñooy gis lu bëree li ko dale ci rapport bi nga xam ne kon Cour des comptes génne woon na ko ci fond Covid fond Covid ko doon koppare mbas mi tey lu yéenekaay bi xëy di xamal ne daanaka ci ay bés gi ñu weesu la waaye nag booba ak léegi ñi nga xam ne kon ñoom lañ ca joxoñ baaramu tuuba kenn ku ci nekk yaa nga yëkkati ay kàddu di

mën a leeral dëggantaan askan ci li nga xam kon moo xew ah, ci mbirum Cour des comptes la nga xam kon génne na koy ba poussière ba ak ba benn yoon yéene kaay bi xëy di xamal ne or Sabadola ba ba te fi nga xam ne kon moom di Massawa yéenekaay bi moo xëy di xamal ne kon moom di askan wa fa nekk daanaka atum 2021 ba fi mu toll nii gisuñu dara loo xam ne kon jamono ji ñu ngi ko cay gis Sabadola Gold Operation Dons Go yéenekaay bi moo xëy rek juróom fukk ci ay milliards ci sunu ay koppar def nañu ko ci atum mi nga xam ne kon mooy 2021 jëflante ak léegi yéenekaay bi xëy xamal nag ne loole ab rapport la boo xam ne kon mi ngi génn ci atum 2021 sunu naataango yi xëy di xam rek ne loolee lu jar a bàyyi xel ba tey yéenekaay bi di xam la ne koppar yu bëri yooyu nga xam ne kon moom la ñu gis ne kër googee nag mi ngi koy jële ci or bi di ko dugal ci nguuru Sénégal askan wi nag moom gisuñu ca dara daanaka ab coono dong la ñuy xamuñu sax ne seen gox boobale or ba mi ngi fay génn di jariñ ñeneen waaye nag ñoom ñi nga xam ne kon si seen ay la nekk dara gisuñu ko ca kii nga xam ne kon moom moo di président conseil départemental bu Saraya

lenn loo xam ne kon jëriñ na leen ca ba tey ci wàllu woowee di xam la rek fi mu toll nii sur et pas fin mbir ma moom a ngay wéyandi waaye nag kuy yàkkamti bay boo nag nga xaddi ndax mbir ma moom jeexagul yéenekaay bi xëy di xamal ne chambre juridictionnelle bi nga xam ne kon mooy otatekaay bi yéenekaay bi moo xëy di xam la rek ne gis na ay dépenses yoo xam ne kon toll na si ñaar fukki milliards ci francs CFA doon say koppar yoo xam ne kon génne nañu ko ci koppar feebar yooyu la waaye naka gisuñu fenn foo xam ne kon laal na ca ak lu jëm ci wàllu ko mbas mi yéen bi xëy di xamal ne kay coow la kon fi mu toll ni dakagul ndax naka fi mu toll ni kenn ku ci nekk yaa nga yëkkati sa ay rek bëgg li nga xam ne kon moom moo di mbir mi ñu mën koo leeral ba tey leneen loo xam ne kon war nañu ko caa leeral ci wàllum koom waa Ghana yéen kaay bi nekk ci internet bi di igfm point sn moo xëy di xam le ne ab communiqué bu baaw ca nguur moom nag ak jaaxle di indil askan wa ndax nag lu jëm ci wàllu ko koppar ya réew ma yéen kaay bi moo xëy di ci samplaaj yu bëri ndax naka ñoom dañu fas yéene tàmbali di biime wala boog dañu am ay ne jamono ji bi di ne loolee ab kay moom dafa am lu ko ndax nag jamono ju ñu amal ab cérémonie ngir nag di inaugurer autoroute boo xam ne kon def nañu ko ci réew ma moom ki nga xam ne kon moom moo di Salva Kiir dafa am ak ndok ndax dafa gaanwante ay ci jamono ji nga xam ne kon ñu ngi doon amal cérémonie ba loole nag goo xam ne kon def na ko ci ay yéréem waaye nag loolee moo fa jural ay jafe-jafe yéen kaay bi xëy di xamal ne kay la ca jaaxal wa dëggantaan kay moo leen taskatu xibaar boo xam ne kon nekkoon nga foofee nga xam ne kon moom moo di ci ba ndax nag dañoo gis ne mbir bi waaye nag benn benn benn benn ñi di taskatu xibaar yi ñenn ñi ña ngay réer ñenn ña faatu noonu yéen kaay bi xëy di xam le rek ne ak jaaxle dëggantaan kan moo def lu nu mel mbaa jege nguur ko wala boog tombe moo waral ay gaaf yéeni kaay bi ne ak jaaxle dëggantaan sunu naataango yi xëy fësal ca nataalu ki nga xam ne kon moom moo di njiitu réew ma mi nga xam ne kon ndog loole moom la dal mu tuur ndox ci aw yaramam yéeni kaay bi xëy di fàttali a jamono ji ñu doon bàkk seen bàkkum réew ma doon na national ba ca la ko mbir ma dabe waaye nag Salva Kiir ak taskatu xibaar nañu mujje loole mooy li nga xam ne kon jaaxal na askan wa lool ne nag benn benn bi nga xam ne kon ñoom ñii di taskatu xibaar ñemeña sax ñu gis seenu néew loo xam ne kon lu jaaxal ñu bëre bëri moom Salva Kiir ko dal lan la ndax feebar la wala déet yéen kaay bi xëy samp jab laaj ci feebar dëggantaan maritew ñaan nañu koy wax ne nag réewum Sénégal moo wopp réew muñ jara faj la ndax nag fi mu toll ni boo bëggee gis ñaawteef dikk fii boo bëggee gis ñàkk worma dikk fii ndax nag kenn ku ci nekk jàpp nga ne li nga xam ne kon moom ma di saw nekkin sañ nga def lu ne yéen kaay bi xëy dina tali kàddu ki nga xam ne kon moo fi yoroon ay jamono wàllu ki njàng mu mi moom nag di xamle nag fi mu toll nii taxawaay bi nga xam ne kon moom la ñu ci askan wi taxawee loolee gàcce dëgg la boo bëggee gis lu ruslu boo bëggee gis loo xam ne kon lu ñu jomb la rek ak ñenn ñi te nañ koy doxale bi xëy di nettali kàddu yi xam ne kon Mary Teuw Niane xëy na ko ca fésal Dakaractu.com lañu koy ci xam ne kon seen lim na ci fukk ak juróom-ñeent doon ay imam yu fekk baax ci réewum Sénégal yéenekaay bi xëy di xamal rek ne ngir seenu taxawaay ñu gënu koo taxawal gën koo jëmmal mu doon renforcement de capacité loolee moo tax nag ñoom ak juróom ñeent ci ay imaam yoo xam ne kon fii lañu fekk baax yóbbu nañ leen ca Dubaay ngir gën a defar seenu tàgget mbokk yi ne kaay ngoo dig daje lëg incha yi fii si UCAB mbokk yi ñu sant leen gërëm leen loolee fi ruusoon ci xibaar ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbaye fare woon ci àddukaay gi machine bi Cheikh bi yéen askan ci déglu bi laata ñuy tàggoo ñu leen la ca gënoon a fees bokk na ca euh, siyaar bu kuréel gu bawoo ci Amérique ñoom nag dikkoon siyaar si xalifa général des mourides Serigne Mountakha moom euh, bu feesal nañ ci li nga xam ne kon moom moo di seen ab taxawaay jot ngeen a la nga xam ne kon jot nañu ko euh, ca feesal ndox mi nga xam ne kon moo ba woon ca bassin Daaru Rahman ba boobaak léegi ñu ne kilifa yëf fa doon dikk ak jaabante lañ leen digoon gisuñu ca dara tax naka ñuy yëgluwaat jot ngeen teewlu Modou Niang ci turu askan la nga xam ne kon jot na ko caa leeral baykat yeek jafe-jafe dund euh, wala ba jiw week ñoom seen la nga xam ne kon na ci jànkoonteel jàngat bi nga xam ne euh, kii jiite kuréel gëlee na lëkkale di URAPD doon rek union des associations des paysans de la région de Diourbel moom nag jot na ko ca feesal Pape Diouf jot ngeen a teew la nga xam ne kon jot na ko caa leeral ci micro Moustapha Ndiaye àllarba bu jot li nga xam ne kon moom moo di wàllu kër docteur di docteur euh, Gaye tey mun doon dikkal ci tension bu yéeg ak nañ ca war a taxawee lam ca jotal leeral waaye tam li gën a fës yéen kaay këmmal jotaay bi w point a2itv point w point sunu fm point com di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp bu raw moom jàmm te mu jàmmal ngam jàmm yàlla nañu defal kenn daluk jàmm mbokk yi ñu bàyyi leen ngeen wéy ak sunu ay programme waxtaanu Serigne Sam Mbaye moo ci topp